seen mbokkum jullit di seen mbokkum taalibe Alaaji Jibi Sey moo dellusiwaat ci seen jataayu Iqra tey nag ñu fas yéene waxtaanee jaar-jaari sëriñ bi ak màggal gi muy thème boo xam ne yaatu na lool nga xam ne dañ ciy jukki lenn ciy jaar-jaaram biñ demee ba ci jeexital ga ñu wax tuuti ci ndigalu màggal gi wax yi nga xam ne sëriñ bi waxal na ko ci boppam su ko defee jaar jaar yi fi ñu koy njëkk tàmbalee mooy wax ne sëriñ bi mi ngi ganee jamono dëkk boobu ñuy wax Mbàkke Bawol waajuram bu góor ku ne xam na ko muy sëñ Mor Anta Sali Mbàkke ibn maam Balla Mbàkke ibn maam Maaram maam Maaram moom leen mooy ki nga xam ne moo sanc dëkk boobu nga xam ne mooy Mbàkke Bawol gi sëñ Tuubaa ganee jamono waaye nag wax nañ ne dëkku fa woon ab taawam euh, la lafa la fa tegoon muy sëñ Ahmadou Farimata Mbàkke ibnu Maam waajuram bu jigéen nit ku ne xam na ko muy soxna jaaratullaahi Mariam mi nga xam ne màggalu poroxaan moom lañ koy defal muy soxna soo xam ne royukaay la neel bépp soxna bu di jullit rek sa royukaay ngoog ci digganteem ak boromam ci digganteem ak borom këram ndax bu demee ba soxna tarbiyu borom këram na mu war a mel diggante ma boromam it mu mel ko bañ tuddee ko jaaratullaahi mooy ki dëkkaaleek boromam loolee kon doy na sa royukaay su ko defee ci askan wu tedd wii ci la sëriñ bi gane jamono topp waajuram it nam ko war a toppee ba làq ngërëmam su ko defee bim waree dal jàng wax nañ ne waajuram moo ko booleeg nijaayam bu ñu wax sëñ Mouhamadou Bousso ci moom la sëriñ bi tàmbalee njàngum alxuraanam. nijaayam joju boole ko koo xam ne nijaay la ci moom muy tafsir mbàkke ndumbe su ko defee foofu it sëriñ bi jàng na fa ba nga xam wax nañ ne tafsir mbàkke ndumbe moom muy wàcc ab liggéey boobu sëriñ bi nettali na boppam ne mi ngi tolloon ci la tajj dan na ginnaaw gi la dellu ci baayam fekk boobu sëñ mo Anta Sali mi ngi poroxaan ba agale ak am am njàngam boobu sëñ mo Anta Sali mi ngi saalum bi sëñ bi delloo ci moom nag ci la wéyal ak farlu ba mujj mokkal ginnaaw gi it ku ne xam na ni sëriñ bi ci ak ndawam ku xam-xam mos di ñor la mos sa dañ di gëstu mos sa dañ di dolleeku mos sa dañ it jubluwaayam nekk yàllay kase ci biir ci biti su ko defee nag noonu la sëriñ bi farluwaan ba wax nañ ne am na téere yoo xam ne moom sëriñ bi teel na koo taalif lool ba waajuram wii di sëñ Mor Anta Sali jàngal na ko ay dongoom téere bu mel ni umul barahin moom la wayaat tuddee ko mooy bul xudduus mul baraahin bu Imam sanusi tudde ko muhabbil khudus nga xamne ne bu njëkk ba weesar la won waaye sëñ bi da ko woy gën neex di jawharu nafis nga xamne lakhdar leci yi la ci jëlaat Sering yi weesar la sëriñ bi tam ñew indi wayat ko ngir mu gëna neexa neex a wattu téere bi ñi wax mu lay nu ca jamono yoy la ko sëriñ bi talif loolu yëpp ngir wane ne sëriñ bi ko xam-xam teel ñor la té itam ku yalla suñu borom defal ay jaglé la ndax at yooyu leen néew na ku ciy toll te nekkee géeju xam-xam noonu waaye booba suñ borom am na lu mu koy waajalal loo xam ne ca kanam lay feeñ noonu la sëriñ bi nekkee ba wax nañ ne waajuram ku jege woon la la ndax seen kóllëre mi ngi tàmbalee Saalum bi ndajee ci Maba Jaxu bi la joor ñëwee ba moom Kajoor sanc dëkk bi ñuy wax kër euh, Amadou Yàlla euh, ci la Mamour Anta Sali tuxoo Pataar ñëw sanc euh, Mbàkke Kajoor su ko defee loolu nag indi eh, dëkkub mbàkke kajoor gi ba fala sëñ moo ànd sali wàccib liggéey jege gim jege woon la joor nag moo tax bi la joor ñibbisee kajoor ba yàlla dogal mu nekk buur ba ci dëkk bi ñuy wax sugeer maama ànd sali daawul dëkk buur yi ndax li muy bañ mooy ay dongo yor di jàngale te boo nekkee ci capital xëy na sa ya war a góorgóorloo wala farloo nañu war a tarbiyaa xëy na mën naa bañ a sotti loolu moo waral daan rek bi mu sancee moom mu sanc paatar ginnaaw gi ca la la joor tuxoo sugeer dem sanc dëkk boobu ñuy wax kër amadu Yàlla ci la Mamour Anta Sall sanc Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor googu leen nag fa la sëñ Mor Anta Sall wàcceeb liggéey sëñ bi nekk fa diir bu gàtt rek doon daara ja ba bis bi ko yónni asar saan dikkalee ne ko rabbi asaabaka bil himmati wala turabbihim bi dar si faqat loolu mooy taalibe yi nga xam ne ñi ngi la topp ba yem ak ñoom ci njàng kase waye nak akasa na nga len yar ci yitte yar len ci yitte moy fasiyene jël sen lepp dëppale lu suñu borom gërëm ci biir ci biti té loolu amna lu ci sëriñ bi mësa wax wax né bo sétlo talib ak sëriñ sen and ci lañ daan yëm rek moy daanaka allah baak di béer lañ seq sëriñ bi néna boko dëgëlé mën na def boko téré mën na baña ba waye néna anduk aada gogu dort ko àndateeg kenn képp ku mi àndatil daal da nga koy jox sa bopp bàyyi ko sa bopp bu la digalee nga def bu la tëree nga bàyyi te nag ànd gii ci la ak defaru meuna am waye ko xamne ne bu le digalee sañ nga baña top ndigal la bu le téré sañ nga baña bayyi lam la téré té lam lay digal ka téré yépp moy li la sa borom digal lim lay téré moy li sa borom téré kon nak ànd goo xamne ne bu le digalee nga def bu le téré nga bayyi ci ngay meuna defaru ci la sëriñ bi na tas daara ja wax waxam ju siw jooju len ne képp ko xamne am jang kasse mo la fi indi won far far képp sama pass pass tay moy sa pass pass fal yasir bi sayrina waaw kaay jaayante te dox sama dox dox dox bi nga xam ne man moom laay dox jëm ci yàlla su ko defee nag wax nañ ne ki njëkk a jaayanteeg moom mooy sëñ Adama Gueye te loolu sëriñ bi am na fu ko wax awul man bàyyi ani Adama Gueye ki njëkk a jaayanteeg mooy sëñ Adama Gueye noonu la mag ñi di jébbaloo di nangul sëriñ bi ba ginnaaw ko ci la sëriñ bi tuxu Mbàkke eh, Kajoor googu leen dem Mbàkke Bawol am fa diir bu gàtt ci la sanc Daaru Salaam Daaru Salaam googu wax nañ ne sant bu gaaw sax ndax ay coono. ak i xat-xat yoo xam ne am na ñu ko doon xatal ndax li mu woote ñu bëri xamuñu ko woon ndax pas-pasam dafa mujj wëlbati ko nekk yàllay kase nga xam ne yematul ci njàng waaye ci lan la nekk tey mooy minallaahi ilallaahi ayna muridullaahi maa ngi bàyyi ko ci yàlla tey dellu ci yàlla ana ko na ma yegg kan mooy ki na ma yegg mooy la loola waraloon nag mag ñi jaayanteeg moom. ginnaaw bi sëriñ bi sancee Daaru Salaam ñu demee ba Daaru Salaam tàmbalee xumb ci lañ wax ne sëriñ bi ci la sanc Tuubaa gi bi mu sancee Touba nag daal di rafaatale dëkk ba Cheikh Anta Mbacke rakkam di taalibeem bu ko nanguloon lool boole koo ki dongo moo tax dañuy faral di wax ne ci yoonu murit ki ci njëkk a seex mooy Cheikh Anta ba ci baatu seex sax wax nañu loolay cosaan bi ndax ku sëñ bi mos a beral ab dëkk rek boole koo ki dongo dañ daan wax naan ndax defal na ko lam defal Cheikh Anta waa ndax defal na ko lam defal seex loolu moo indi baatu seex nga xam ne di topp na sëriñ bi ba jëlee fa lam fa war a jëlee mel na mu war a mel sëriñ bi ber ko muy defare loolu kiñ ko njëkk a defal ci yoon wi mooy Cheikh Anta su ko defee na gannaaw bi sëriñ bi sancee Touba te am na loo xam ne da ko digaale woon digganteem ak boromam ci ay maqaamaat yoo xam ne mu ngi koy wut ci moom ci cër boo xam ne mu ngi koy wut ci moom te dara du ko ko may lu ay ay nattu ci la ko suñ borom xamal ci baatin ne ko dëkk bii li yaa ngi fi nattu ya coono yi la war a may li nga xam ne moom ngay wut doo ko am kasaa ci la sëriñ bi nag. tuxoo Touba sanc Mbacke Bari waaw Mbacke Bari wax nañu ne diir bu gàtt la fa am booba daari ji tàmbalee xumb lool mbooloo mi tàmbalee bari lool te ku ne xam na ne jamono yooyu tubaab yaa ngi fi te tubaab yi seetlu woon nañ ne am na ay nit diina yu bari yoo xam ne bu ndajalaan mbooloo ba mbooloo ma bari rek li ñuy bëgg mooy dal seen kaw ñoom waaw gannaaw nag sëriñ bi tey Maba Jaxu jaar na fi sëñ Omar Foutiou Tall jaar na fi Ahmadou Seexu jaar fi te ñooñ ñëpp jëflante woon nañu tubaab bi jëflante yu metti te ay nitu diine lañu woon te gis nañ ne sëriñ bi nitu diine la te mbooloo maa ngi tàmbalee bari lool kon nag boo xefee bu yàggee rek feñee jaaroon fa lay jaar ak ñoom te fekk ne sëriñ bi jubluwaayam leneen la sori na loolu lool te jubluwaay woowu di leneen ku gëstu taarix bi nga xamee ne Maam Mor Anta wàcc nag liggéey nga xam ne eh, sëñ Tayba mi nga xam ne moo ko jullee gannaaw gi biñ ko dencee dane kat fa Maam Mor Anta Sali féete woon la joor kiñ fa gën a xeemeem tey ngir mu wutu ko fa mooy sëriñ bi waaye gis nga sëriñ bi lam tontu wane na ne pas-pasam leneen la waaye du jublu buuri àddina yi ndax mas naa bind sax ab leetar jox ko ku ñuy wax suñu Adama Sall dafa bokk ci njëkk a jébbalu ci sëriñ bi yónnee ko la joor waaw te lam ca wax mooy borom xam-xam bu ñuy wax Muhammad ibn Maslamata nee na borom xam-xam ci buntu buur dafa mel ni weñ wu teg ci ay ginnaaw kër booba la joor ngi bëgg mu jege ko lool te sëriñ bi pas-pasam leneen la. bi ko xaadima jaxata kala jàngee ba àgg fi sëriñ bi wax loola dane inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la joor ne ko lu mu wax ne ko nee na deey borom xam-xam bu nekk ci buntu buur dafa mel ni weñ wi tag ci ay ginnaaw kër la joor ne ko yow waxu la dara ndax yow la def weñ wi man kay maa ngi li ci des loolu yëpp di wane ne sëriñ bi pas-pasam yàlla lay kase la ci biir ak ci biti bu doon mbiru àdduna wala bëgg a faloog leneen ak leneen kon feneen lay jaar waaye fi mu teg tànkam li muy wut ci yàlla képp lu koy waaye tubaab bi na ko woon noonu yaakaar na ne bu dajalee mbooloo rek bu yàggee ci kawam la jëm te ku jàng xaalu li yarkan li ababi salaatin taxus jawaïsa tuxni ku la maa xiini loole bi Maam Mor Anta Sali wàcceeb liggéey la bañ na ko demal féete la joor fa ko sa bàyyi féete woon ndax yaa ci gën a yey sëñ bi da tontu ne ruus naa sama tànk moromam ba di ko fekk si mu dem ci beneen buur budul yàlla te loolu am na bëyit bu ci wax ne zahada nii tuli chamsi fi nazar ila nujuumi fi samaay wal nee na jant gi nga xam ne moo fenk ci samay bët moo ma dëdduloo may xool ay weer wala may xool ay biddiw xam nga ku jant ne dàgg ci sa kanam amatoo soxla ci weer amatoo soxla ci biddiw loolu mooy yàlla ak yonent bi la feesee dell doyloo ko sëkk nag waxantuma laa nag muy dem di xaaraani bunt buur yoo xam ne ak saa la mu wax ci xaaloo rek doy na ci tegtal kasa li mu wax mooy ñi ngi naa ma jengal dem ci bunt buur yi boo fa demee da fa jëlee ay xéewal yu baree baree bari yoo xam dana la doy sa diiru dund sëñ Tuubaa ne leen fa xultu ma daal di wax ne xas bi bii yàlla suñu borom doy na ma waxta faytu bii te doyloo naa ko wala suraadiya xayral ilmi wa diini te man sëriñ Tuubaa gërëmuma lu dul xam-xam ak diini kasa ba ca biir woy ba boo demee mu naan sama lépp joyal naa ko jëmale ko ci sama borom nan lay demee ci buntu buur yoo xam ne seen sardin ya seytaane fa lay fexloo kay fa yab asu nii xubbul xitaam ilaa jiwaari man duuruhum rawda shayaatini ñoo xam ne seen kër ya seytaane fa lay fioxloo man bëgg poñatum àdduna nan la may yóbboo ci seen may jàng jëm ci ñooñu leen kon moom léppam la jooyaloon jëmee ci yéen asatu salaam su ko defee nag noonu lañ convoqué sëriñ bi ba sëriñ bi njëkk muy dem di déglu ndigalu boromam yemal na fa sax euh, maam Thierno Birahim Mbacke ginnaaw gi nag bi mu jotee ndigalu suñu borom ci la génn génnam gu siiw boobu wax waxam gu siiw jooju di xaratu yow ma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fi chahri safar maa ngi génn euh, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar waaye li xidmatil muxtaari ngir liggéeyali kuñ tànn ko te mooy yonte alayhi salaam ginnaaw bi sëriñ bi amee ndigalu génnee Mbàkke Baari nag dajeeg tubaab bi it gannaaw yàgg na ko bind lettre ngir mu wiisu ko ndar tubaab bi it di ko jéem a jël si mu neex ko mu naqari ko dajeeg sëriñ bi it am ndigal ca lañ wax ne ca lañ daje jeewal ginnaaw gi noonu la bi demee ba ndar. ak atté ñu ko fa atté ci ay tapalé yo xamné foko na ko natt nako weesu déglu sëriñ bi sëriñ bi siñel leen khul wallahu ahad allahu samad lam yelli ba lam yula walam yakun loo ko ahad su ko défé rapport ba boko gisé lañ wax moy faaw sëriñ bi nga xamné ay jangalem amna lu mu commencé jur ci réew mi faaw ñu tumarankel ko tumarankel gi moy lan nañ ko génné dëkk bi yobbu ko gabon su ko défé njàngaleem yi nga xamné mom la fi tambali bam am lu mu jur mooy nañ fexe ba nit ñi fàttu nga xam ne pas-pas su rek la woon waaw mooy nañ fexe ba euh, pas-pas bi nga xam ne mi ngi koy tàmbalee yee ci nit ñi nañ fexe ba jëlee ko fi. am na taarix bu ñuy nettali sax tubaab boo xam ne bis dafa ñëw ci sëriñ bi ne ko euh, li ñu jaaxal mooy ñoom dañuy laaj lempo te léeg-léeg ngir ñu jot ko euh, daana jafe te yow gis nañ yaa ngi laaj ñaar fukk juróom-ñett ñu lay jox di la jox ba nga ne doy na sëriñ bi ne ko yéen da ngeen a yilif jëm yi ñun ñu yilif ruu yi mu ko lan mu ko boko ko misal dafa melni ni tabax yi ci ndiarim ngeen mom euh, tabax yi mom mom li ci bir waaw loolu yëpp li muy pas-pas bi serigne bi ye ci mouride yi ba serigne bi ñu jaral ko nga xam bu len joxon ndigal ci songu tuba bi rek kasa dana doy war lol waye serigne bi ku ne xam na ci jamm la dox nim fi nekké ba niñ ko noppé gis leppam euh, assalam dong la su ko defé nak non lañ ko atté ndar jëlee ko ndar indi ko ndakaaru mu am fi bis yoo xam ne yu métte métti la ba nga xam ne bind na ñaari bayit yoo xam ne day wax ne jaar jëm jaar Dakar saa bu ci xolam demee rek kasa day dem ba bëgg a jël ay xeej bëgg a jël ay ngànnaay songu tubaab bi waaye nag ki ko ciy jëlee zabba andeen maax yoon isaatu salaam moo ko ciy moo ko ciy jëlee ndakaaru gii lañ ko dugalee néeg boo xam ne wax nañ ne bi sëñ bi njëkkee teg ab tànkam ràbb lañ ko fa tegal daf koo jam ba fël waaye sëñ Tuubaa da ci daan teg ne caalituma moo tax boo jàngee asiru di nga dégg maa la xusóori xalat wala ahlu ani tafaraqat li madaxi lësi am xel madixu xasiru samay kër wéet nañ que ça euh, wala ahlu ani tafaraqat samay njañ tàggoon nañoo ak man ngir lan tagg gi muy tagg ki nga xam ne tagg woo ko tagg rek mu cëkk ko mooy yónni asalaatu wasalaam loolu yëpp di wane tumuranke gi nga xam ne sëriñ bi jaar na ci diggam ak boromam diggam ak lislaam waaye ginnaaw bi ko fi jëlee nag yóbbu ko Gabon mu am fa at yu bari juróom-ñaar ba daanaka li ko teree mat juróom-ñetti bariwul ci lañ ko delloo si nag biñ ko delloo boobu mbiram di siiw lool mbooloo mi gën a baree ci lool bañ jàpp ne kii daal bàyyi ko ci réew mi wóoratul ginnaaw bi la ko fi tubaab bi jëlewaat yóbbu ko ca naar ya muy Mauritanie gànnaar am na fa juróomi at ci jamono yi sëriñ bi nekk gànnaar ci lay sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana ji nettali ne am na naar boo xam ne ñëw na mel ni ku jébbalu ci sëriñ bi te fekk ne pas-pasam leneen la woon te du dara lu dul jéem a jël bakkanu sëñ bi su ko defee wax nañ ne am na xayma boo xam ne sëriñ bi da ko defar la woon taalibe yi biñ ko defaree ba sëriñ bi tuxu fa ci la naar bi jàpp ne kon moom euh, pexe ya nga xam ne moom la bëggoon léegi mu war a mën a sotti ba génn guddi ci la jéem a dugg ci néeg sëriñ bi fexe ba jéem a rocc jaasi ji fekk am na ku ko yëg bi mu ko yégee ne daal di koy yeggee taalibe yi ci lañ daw gaaw fekk ko ci biir wax nañ ne bi ñuy ñëw fekk nañ mu yëkkati loxoom bëgg a bëgg a cor far mu daal di ca xayma loxo bi ca la muriti wadd ca kawam bu ko sëriñ bi yégee rek tinu leen ci fekk am na mbooloo moo xam ne suñ ma lami jëm mi ngi koy ne ci raw na dim nee na mbooloo moo xam ne sëriñ bi da na a weroon a yeewi ca leen woolu boole leen ak naar bi ne leen nag fexe leen ba jàllale ko te waxu leen dara mooy mbooloo moom yëguñ sax ne lii moo nekkoon pexe yi eh, naar boobu leen loolu yëpp di wone eh, sëriñ bi ni mu nekkee nitu jàmm ndax noonu boo xam ne li nekkoon pas-pasam dara du jël sa bakkan nga dem ba am ci pexe te mën a jaar ak moom feneen jëflante ak moom waaye gis nga ni ko sëriñ bi suturaalee te wax nañ ne naar boobu dem na ba jëmm jamono sax daan na siyaare sëñ bi ba fekk ko njaarim waaw waaye bu ko gisaan wax na ko yaa saaxiba sëy fi mooy yow borom jaasi ji mu ne ko déedéet neer saaxibul ihmaa waxal borom xam gi loolu yëpp ngir wone sëriñ bi ni nekk nekkee nitu nitu jàmm bu jógee ci tukki biir ku ne gis na ne bayit bi mu wax ne afawtu anil aada ay turan mooy jéggal naa sama mbooleem noon yi te xoolal liñ ko dajloo ciy coono su ko defee naar boobu suñ ma lami jëm mi ngi wax ba tey ne euh, mës naa dajeeg moom Cees sax mu leer ko ne naar bi mooy borom pas-pas bi nga xam ne pas-pas bu doye di la te bi muy gisee moom mi nga ànd ak taalibe yu bari nga xam ne bu woon naar bi nangam rek boo xefee keroog dañ koy faat waaye nee na loolu bu ko defoon ana jikkoy sëriñ bi waaw ana jikkoy sëriñ bi koo xam ne sëriñ bi jéggal na ko yow koy boo dee taalibeem war ngaa mën a nàmpee ci sëriñ bi dara ba nga xam ne ni sëriñ bi mel rek boo mënta mel népp nga am loo ci jël. moo tax sëñ Ma Lamine Diop wax lu am solo loolu ne bu fekkoon yéebaane na ko rek kon ana jikkoy sëriñ bi su ko defee nag gannaaw bi sëriñ bi saxee gànnaar lu mat juróomi ginnaaw gi nag ci ko fi tubaab ba jëlee indi ko Thiéyène Jolof résidence surveillée ba léegi. su ko defee ceen jolof jooju it wax nañ ci taarix ne am na bis bërëb dëkk ba ne bu fi kenn sarax ab dongo boobu taalibe yi ni ñuy faral di màjjaalee nii rek loo xam ne lu ñuy lekk la ak lu mel noonu sëriñ bi keroog dafa génn bu kenn yelwaani waaw waaw bu kenn yelwaani loolu yëpp ngir wone ba tey tumuranke gém jaar te daf ko wax ci bayit nabaxtu ko maan ala kaddin badda lii xabla an araayif dan mu abada maa ngi leen di yee yéen ñëpp ngir ngeen xam ne ay coono yu feeñ laa jànkuwanteel njëkk may dajeeg ngërëmal sama borom su ko defee nag gannaaw bi sëriñ bi bàyyi ko ci yéen jolof jooju ci lañ ñëw nag njaarim njaarim nag fa la mbir yi xaw a tane tuuti ci wàllu fitna ak wàllu coono waaye teewul ba tey ci résidence surveillée la nekkoon su ko defee nag noonu lañ nekkee noonu lañ nekkee ba ci atum 1921 su ko defee ndigalu màggal gi nag foofu la foofu foofu la jóge waaw at moomu ci la sëriñ bi génn joxe ci ndigal. wax taalib bi yëpp ne leen bis bi saa bu accepté rek kasa li ko dalee ginaar ba giléem lu ci waaye man rek na ma ci sant la yàlla moo tax li ko tax a jóg mooy bisub sant yàlla ndax bis la boo xam ne moo dëppoo woon ak li ñu wax sànq ne mooy bis bi mu génnoon xaratu yow ma sabti saamina achar li xidmatul muxtaari fi chehri safar moo tax sëriñ bi am na fu mu wax ne bis bi saa bu agsiwaat natt yoo ko suñu borom teg dafay dolleeku waaw natt yi bu fukk bu bis bi dellusee muy ñaar fukk bu dellusiwaatee muy ñeent fukk bu dellusiwaatee muy juróom-benn fukk nee nattu ya noonu lay dolleekoo di dolleeku ba ci at moomu nga xam ne ca lay wàññi nattu yi dolleeku suñ borom xamal ko ne ko nag nattu ya doon dolleeku moom jeex na waaye bis ni ki tey saa bu bis bi accès na nattu ya daan dolleekoo noonu la xéewal yi dolleeku. bara sëriñ bi ne képp koo xam ne yaa ngi koy màggal la ma jëlee ci sama tukku ba dara du la ci ump loolu yëpp ngir wane ne eh, bis la bu mu fonk lool. kon nag ku di taalibe war naa fexe fonk la ko sëriñ bi am na fu mu waxee sax ne lépp loo xam ne su ma leen gane woon di ngeen ma ko defal na ngeen ma koy defal ci sama bis bi ndax euh, yàlla bu la defalee nga sant kat ci la diggan ndollal waaw yàlla bu la defalee nga sant ci la diggan ndollal da ko wax la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dolli leen kon nag sant le sëriñ bi suñu borom mi nga xam ne moo ñu ko melal ni mu ko melal defal ko li mu ko defal ba mu mën ñoo defal kon kat bis ba muy sant boromam nga xam ne bis yëpp la waaye da cee ràññee bis boobu waaw ber ko ci rek ngir képp koo xam ne mu wax ne sa mbëgg mooy sama mbëgg wala sama mbëgg mooy sa mbëgg kon dee ma ci sant la suñu borom loolu nag nekk sas bu rëy boo xam ne dañ war fexe bu mbëggum sëriñ bi nekk suñu mbëgg fu mu mën a doon loolu nag sas la boo xam ne nekk na danga koy yemale ci màggal gi rek ndax màggal gi sëriñ bi fonk na ko sëriñ bi ku xam na ne mbëggam la kon nag nañ ko ko le waaye bu mu yem ci bis boobu rek ku ne xam ne sëriñ bi ko fonkoon alxuraan la sëriñ bi ko fonkoon jaamu yàlla la sëriñ bi ko fonkoon boromam la fexe ba roy ko ca loola waaw lu ama am solo waaye bañ koo yemale ci yenn yoo xam ne kasa dafay neex suñu bakkan rek bu weesoo la nga xam ne lu naqari suñu bakkan te sëriñ bi fonkoon ko loolu ñu wéel ci suñu xalaat wala wéel ci suñu pas-pas wala ñu won ko ginnaaw loolu moom wóorul ndax sëriñ bi moom juyoog moom wóorul gannaaw fi mu jaar mooy yoon. fi mu jaar a baax kon boo wuteek moom foo jëm te ëpp naa wuteel kasa la u man lam yahwani xab kutiba fi lawxi lazi yufidul kutaba kasa suñu tubaab nee na ku ma bañ rek texe di nga waaw gëlbati ko waxaat ne képp koo xam ne wute nga ak man ay malaaka yu tal dinañ la yóbbu ci barab boo xam ne bu wéet la di la fa mbugal mbugal mu tar te wuteeg sëriñ bi rek koy jur kon nag ëpp naa ëpp naa wuteel su ko defee it bokk na ci li mu waxaat ci màggal gi nee na àjjana ku xam na ne amul bis bu naan bis sangam loolu fii la yem waaye nee na waxtu wa nga xam ne ci lañ daan màggal bu agsee suñu borom dana ko xam ba àjjana dana yokk ci xéewal ak i mbég ba ku dana xam ne bis ñi ngi teel a woon màggalu Touba kon bis bu màgg fa suñu borom bis bu màgg fa sëriñ bi bis la màgg fa yónni asatu kon nag képp koo xam ne am nga cër ci sëriñ bi rek bëgg nga sëriñ bi xamal ne kat am na loo xam ne moom mbégam la woon ndigal la ci joxe. muy bisu magal gi su ko defé nak liko dalé ci ginaar bëggaleem lu ci way man rek def ko baña yem nak ci ñi nga xamné dañuy magal yi nek ci dëkk bi taxawal rek waye fexé ba ni sëriñ bi bëggé ku ko ni magalé nga defé ko amna solo lool su ko defé lu ci man jang alcorane jangi khassida yu waxtaan ci sëriñ bi ba nga xamné ginaaw buñ lekkee bern yaag xéewal yaag su ko defé nit ñi ñu waxtaanal leen waxtaan yo xamné ne mën nañoo mosee ci sëriñ bi lo xamné aljana lay réssé ndax berde kat ñaar la berdeel jëmm ji baax na lool am na solo lool waaye sëriñ bee ngeeg ñam boo xam ne képp kuñ ko berndeele ajana lay reese parce que moo lay wëlbati def sa jubluwaay muy yàlla yi kese ci biir bi ci bitti ndax njàngaleem sëriñ bi nim mënee defar xol nim mënee defar nit foo ko natt weesu na ko su ko defee nag delloo nit ñi ci yàlla jaaree ko ci li sëriñ bi bind li fi sëriñ bi jàngale day am solo lool ci bis yu mel noonu moo tax ma ciy soññ sama bopp baax ak bépp mbokk taali bi ñoo xam ne bis la bu màgg fa yàlla bis la boo xam ne nag bu sëriñ bi fonkoon la te nag laa taf al shay'an bi ghayri isni fal izni shurtun fi xubuli shay'an bi bul def dara lu dul dafa tege ci ndigal kasa su ko defee nag ku ne xam ne ne màggal gi moom sëriñ bi joxe na ci ndigal bu wér-wér ku ko jëfee xam nga ne ndigalal sëriñ bi nga jëfee ndax soññee na ci bataay daan génnee ay dërëmam ci njëlbeen ga di ko ci def te lépp ngir loo xam ne mbégum taalibe yi lay doon mu daan ko ànd ak su ko defee noonu lañ koy màggalee noonu lañ koy màggalee ba ci 1927 ci la xew-xew bu yéeme ba am ba sëriñ bi di tuubaa waaye bàyyee fi ndàmb loo xam ne ku ci mooy rek doo juyoo ak yàlla ci dara te lépp da nga koy jaaree ci satu salaam noonu lañ wéyee ci ndigalal màggal bi ba ci jamono sëñ Fallou ci la ko woote Touba kasaar su ko defee loolu mooy taarix bi mu mat a xam lool mat a gëstu lool su ko defee ku mel ni sëñ Mor Lamine Diop Dagana def ci téere bu am solo muy Irwa Nadim boo demee ci mel baax xadim sëñ Mouhamadul Bachir mën nañ koo gën a yaatal nga xam ne lu bare bari ci yenn détails yi nga xam ne mënuñ ci woon a euh, yegg ndax waxtu wi moo ko mayul boo yéree téere yu mel noonu di nga ci dooleeku bu baax a baax ndax xam jaar-jaari sëñ bi am na solo lool dana tax nga xam ne lim am ci boromam da koo jaayante bu wér-wér waaw da koo jaayante bu wér-wér kon nag bëgg dara te jaraloo dara wala defoo ci sa dara loolu mënta nekk kon boo gisee sëriñ bi. ni mu jaayanteeg boromam ni mu toppee kilifaam yonent salaatu wasalaam nga gëstu ko xam ko dana tax yow nga war cee mën a góorlu jàngee ci dara. leneen liit mooy bu weesoo jaar-jaar yi njàngalee mi nga fexe ba gëstu ko xam ko lu ama am solo la bañ a topp topp déggtal rek nangam baax na nga ne nekk ca du tee sax nga mën a nekkaat ci leneen wax leer na ne baaxul te bu ñu la ko àndal nga ni sëriñ bi su ko defee ne gëstu jàngale yi ba xam bu wér a wér fu mu la jaarloo fu la teggiloo loolu dafa am solo. te ay njàngaleem wutewul ak jàngale yonent bi wutewul ak alxuraan kon boo ci nee ñàpp te topp ko rek topp nga yonent bi topp nga alxuraan ça te du tee nag yëpp mën nga koo gëstu xam ko nit daal moo war a yittewoo xam-xam rek ndax jamono bi ñu toll moom xam-xam jege na jege goo xam ne kum doon sa yitte mën nga cee jot rawatina bu dee ci sëriñ bi ndax fi ne ba bisu yàlla tey bi ay téere nga am yoo xam ne day jàngale ba bisu yàlla tey bi ay mag yu baax ñi ngi fi yoo xam ne li nga xam ne duñ ko fekk ci téere boo leen toppee ñu def ko ci kon nag des na ci ku nekk rek loo bëgg daal fexeel ba fam nekk nga fekk ko te sëriñ bi ñaar yooyu la dafa am loo xam dañ koy yër am loo xam dañ koy yëg li nga xam ne dañ koy yër bàyyi na fi lu ci doy li nga xam ne dañ koy yëg it ñi koy yëgle ba tey bàyyi na fi ñu doy des na ci yow rek boo ci bëgg rek nga ak ka nga xam ne moom la suñu borom dogal mu nekk ci moom kon ñi ngi tënk foofu kàddu gi di leen sant bu baax ci teewlu gi di sant tam wax dëgg yàlla suñu mbokk talibé Ibrahima Diouf mi nga xamné liggéey bi yépp ca vidéo yu njëkk ya ba ci bu mujj bi moom lañ ko àndaloon mu féetewoo wàllu caméra gi ñu koy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom yàggal ko te wéral ko te liggéey bu am solo bi nga xam ne ñoo ko seqoon yàlla nañ ci bokk daje ngërëmal suñu borom di sant tam suñu kilifa bi nga xam ne buñ demee bay wax ci diine bay wax ci lislaam moo ñu defar moo ñu tarbiya tarxee euh, ci moom la suñu borom jaaree su suñu gindeeku ci yàlla ak loolu yëpp muy Cheikhuna Cheikh Moussa Touré ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér yéeneem ci ñun ak suñu yéene ci moom yàlla ko yàlla matal di ko santale kilifaam Cheikh Moussa Cissé njàmbi borom daaru mi nga xam ne euh, moo waxal boppam ne ci mbincam sëñ Tuubaa laa jàpp ba àgg ci yàlla ba mën caa àggale ab jaam kon nag ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp Eh, di ñaan rek nu nga ko baaxoo waxee yàlla nañu yàlla def dégg dégg taalibe te rafetal suñuy pas-pas ñu leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.